mbokk yi dellu nañ ci bis bu am solo bis bu ñu baaxoo amal ci ñaari fan ci yu kor mbooleem njaboot gi baaxoo di ci tase ak ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha muy bisub ziyaar waaye di bisub déglu ndigal ci sëriñ bi nga xam ne mooy jëwri ni daarul xudduus ñu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko ak wér ñu di ko ànd nag ak diiwaanul muridina ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gi yëpp ak daayira yi ak mbooleem taalibe yi mbokk yi tey suñu jataayu tey bi dañ koy tënk rekk ci ñeenti tomb tomb bu njëkk bi dañuy jox sëriñ Cheikh Lo mu wax ci turu diwaan bi dalal mbooloo mi ñaareel bi ñu jox sëriñ Ibrahima jëmb mu wax ci turu njabootu sëriñ Daaru Asan ak turu mbooleem jëwriñi kër gi ak seex si yëpp rek ñetteelu tomb bi sëriñ Seex Njaay lañ koy jox mu wax ci turu président diwaanu Muridina sëriñ Ousmane Mbàkke wax ci mbirum diwaan bi ak yecaaju ñeenteelu tomb bi soññee lay doon comme ni ñu ko baaxoo defee sëriñ Ahmadou jaay Ngeraan moo koy jottali bu noppee nag ñu maase ànd teewlu sëriñ bi ci ay kàddoom yi nga xam ne moom lañuy ñuy dénk ñu door a yeewee ko incha allah. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa bokki jullit yi fi teew yépp noo ngi leen di nuyu. ci turu Cheikh Ousmane Mbakke miy jëwriñi diwaanul muridina di leen dalal jàmm di leen sant ci teeween wi nga xam ne moom ngeen teew ci bis bii ñu àndandoon nun ñépp ginnaaw bu nu teewee di nuyu cheikh mouhamadul moustapha mii toog muy sëriñ ahmadul muxtaar di ko siyaare ci turu mbooleem buntu kër yi njabootuk cheikh moustapha ji ñépp kenn desul ak ci turu jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi muy seex si ñoom ñépp ñu ngi ni toog ak daayira yi seeni mbooloo jëwriñ yi ñoom ñépp ñu ngi ni toog noo ngi lay ak noo ngi ñoom ñun ñépp di feddaliwaat sunu cofeel ak sunu yaakaar ak sunu njëbbal ci Cheikh Mouhamadou Moustapha te kooku mooy Serigne Ahmadou Moukhtar tey jii ci kaw suuf mbooloom njabootu Cheikh Moustapha gépp ñu ngi nii di la siyaare di fas yéene déglu sa ndiggal li nga nu digal moom rekk la ñuy def ndax kër gi moom benn baat rekk la na ko sëriñ xaalim waxe woon ne benn baat benn baat benn baat yaay Cheikh Moustapha ñépp a ngi kër yépp nag kër yépp a ngi fi kenn desul ah noo ngi lay siyaare bu baax tey ñaan sunu boroom tabaaraka wa na la sunu boroom defal dund goo xam ne dana doon dund ku yéeme te mu ak wér na ko genn góor gu baax ñaanale woon kilifa ne ko maa ngi lay ñaanal sunu boroom defal la téeméeri at yu tofal ànd ak bërët dem loolu yi ñoo la ko ñaanal sëriñ bi mbooloo mi ñépp mboolem ñi fi bokk teew kenn ku nekk xolam la ca ne mooy lii ma wax mooy waxtu nekk ñoo ngi ñaan suñu boroom ah rus nu ci defal la loo xam ne dana doon yéeme ci dund ànd ak wér ba li ngay ba yéene liggéey Cheikh Moustapha lépp nga defee ko na ko bëggee tan ànd ko yow ci barkeb Cheikh Moustapha ñépp a koy ñaan di la seereel it nag ci sunu jëw jëwriñ ji nga xam ne moo nekk ci kanamu mbooloo mi mbooloo mi waxoon man na naa jot li ay seere ci sunu jëw jëwriñ njii muy sëriñ Ousmane Mbacké Gaynde Fatma dafa wàcce boppam ba tolloog nun kenn ku ci nekk buy wax yow day day mel ne kuy wax ak moroomam ñun ñëpp ay moroom lañu def te du suñ moroom moo nu gën lépp ndax maamam lañu yaakaar ñun ñëpp ki ngay ki ngay yaakaar maamam mu wàcce boppam ba tolloo yow kooku kenn mënu ko fay mbooloo maa ngi daal ñu ngi lay seere ne ni mu jiite mbooloo mi rafet na xanaa ñu dolli ñaan rek ñun ñëpp nga dolli koo ñaanal bu baax ba liñ ci yéene lépp ak li ci mboo mbooloo mi yéene yépp ak mbooleem njabootu Cheikh Moustapha yi mooy buntu kër yëpp ña fa nekk yilif bu kër yooyee ñoom ñëpp ñoo bokk yéene ji mu nekkal leen fi ñu ànd ak moom topp ci ginnaawam fu mu na joxoñ rek loola lañuy def te it mu ngi ci eh, eh, taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu yéemale ah kon sëriñ bi loolu mbooloo mi dañoo waxoon ne nañ nañ la ko seereel ci sëriñ Ousmane Mbacké noonu it li nu war nun taalibe yépp ak euh, mbooleem jëwriñ yi mooy surtout nag daayira yi nanu fexewaat nag fabuwaat ndax li gàllankooroon lii ba defuñu ko ñaari at yi ñëpp gis nañ ko mooy dañuy mën a wax ne seytaane su duggoon ci àdduna bi la euh, bëggoon na tilimal pas-pas yi ba sax bu ngeen seetloo am na pas-pas yoo xam ne tilimal nañ ko euh, noo ngi ñaan ci barki Seex Mustafaa sëriñ bi nga ñaanal tax maanaam pas-pas yooyu yi nga xam ne da doon tàmbalee am xumaag xumaag boogee nga fóotal nu ko ci ba mu set wecc ba ban mën a fabuwaat ah, jaajuwaat yokkaat pase bi ba li nga xam ne moom nga bëgg ci liggéey bii ba tuddee ko diwaanu Mouridina ñu ñu defe ko na nga xam ne ni nga ko bëggee te mu dëppoo bëgg-bëggu Cheikh Moustapha noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo ak ziyaar bu jóge ci sëriñ Abdul Qadir xalifa bu sëñ Daaru Xasan radiallahu anhu kàddu nuyoo googu ak ziyaar boobu ak fedd li njébbal mu di ko jéemee ci sëriñ Ahmadu Muxtaar mii fi toog yàlla na fi yàgg te wér ak gale ay mébétam ci diine ji ak yoon wi ak bokk gi ak réew mi yépp te nu ànd koog moom te mu ànd koog moom itam kilifaam gu baax gii fi nekkal Cheikhuna Ahmadul Xadim radiyallahu anhu di Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak njabootuk Cheikhuna Ahmadul Xadim gépp radiyallahu kon sëriñ bi sëñ Abdul Qadir mi lay nuyu lu bare bari yabal na mbooloo mu takku sëriñ Gunda Njaay nekk ca seen kanam ngir wuy si woote bi niñ ko baaxoo woon di ko wuy si di ko ànd ak yow at mu jot di fedd li moom itam sëñ Abdou ak mboolem njabootu sëñ Daaru Asan gi mu àndal seenu njébbal seen kóolute seen kóllëre seen yaakaar yi nga xam ni dañ ko fee fekkoon way jur ya àndoon kook Cheikh Mouhamadul Moustapha radiallahu anhu bañ ko gisatul ànd kook sa mag yu baax yi ko fi wuutu ñu di ko donnante ba mu agsi ci yow yàlla dogal mu taseeg yow ak xilaafaam ak njaboot gi kon mu ngi feddali ko bu baax a baax di dëgëral bu baax a baax loolee jiitu fas yéen koo dund fas yéene koo dundal ngirum dundam ànd ko ak njaboot gi kon gannaaw loolu it mboolem seex si dañu ma jox seen kàddu kon bu dee mboolem seex si kàddu gi jóge ci Serigne Mbacke géey Ngàcc mi nga xam ni mooy jëwriñu seex si sëñ Mbacke géey Ngàcc nag buñ ko waxee Serigne njaay Gueye mooy ndawam li mu yabal bu waaye nag sëñ Xaadim Gaye moo ko fi nekkal fii gannaaw dañoo nekk ba ngàcc ngàcc ak fii dafa sori yoo ba tax na kon sëñ Xaadim Gaye moom lañ dénk seen kàddu sëñ gaa Xaadim nag mi ngi nii toog ànd ak njaboot gi yépp kon day mel ni kàddu gi kàddu ma kàddoo ma ma di ko ko jottali kon mboolem seex si ñoom itam noonu ma wax rek ñi ngi yëkkati kàddu nuyoo bu jóge ci sëñ Mbàkke Gueye ngàcc ak siyaar ak fedd li kóllëre ak yaakaar ak njëbbal di ko jëme ci yow sa jëmm ju tedd ji di ñaan suñ borom tabaaraka wa taala mu yàggal la ci suñ kanam nu yàgg ci sa gannaaw te lépp loo mébét rek ci mbooloo mi te mooy li leen di jariñ àdduna ak aaxira sun boroom defal la ko ba mbooloo mi nangoo topp sab joxoñ bay tax li nga leen yéene ñu am ko loolu sun boroom mi ko man yàlla na la ko defal am nañ ci yaakaar nag ndax saa mbir moom saa boo dee gis ay jéego yu jëm kanam da yaakaar ni rek lii dana àgg fa jëm ndax jotaayu tey bii dañ cee seetlu loo xam ni lu am solo la te wax gi day doonub soññee ndax seex si nii ñu ànd tey ànd duggandoo ci jotaay bi toll nii ñu toll at mu jot bañ dalee woote woote beeg léegi maa ngi fi doon ñëw waaye damay seetlu ni dawuñu ko defe nii xëy na kenn ku ne da daa jóge rek fa nga jóge ñu tase fi waaye nag joxante waxtu tase bokk toog ànd dikk toog loolu lu am solo la te ñoom seex si loolu rek noonu lañ war a def ndax nag ñoom dañuy war a xam ni ñooy soldaari kër gi nga xam ni ñoo war a aar kër gi bu demoon ba jaaxle dikk ñoo war a taxaw fexe ba delloo si jàmm fexe ba delloo si ak dal kon daa mel ni ba nga xamee ni sëriñ bi mi ngi boole suñ maam yi ak suñ wayjur yi ak mbooloo mu topp ci ñoom ngir rek ñuy taxawu kër gi di taxawu lépp moo tax mag ñi nag lañ waroon a ne nekk nañ ci ba jóge fi yàlla dogal nu des fi kon nañ laxasaay waat góor-góorlu waat fas yéene li fi mag ñi bàyyi nu jëmee ko sam yàlla muy dimbalee yàlla nañu ci dimbalee sëñ Ousmane nee na mi ngi sant itam mbooleem kilifa yi daaru Xuddoos ndax ndigal li bi mu jógee ñoom ñépp ko ànd ak moom kenn desul kenn ku ne di soññ sa waa kër ngir ndigal li nga ko jox mu mën a antu nee moom itam mu ngi leen di berlum nuyo di leen sant bu baax a baax a baax a baax di sant cheikh si ndax ñoom itam ndigal lii daa mel ne dañ koo jëlal seen bopp def ko seen yëfi bopp su jógee jamono bu ne ñu koy woo di ko soññ fu mu toll nee na kon mbooloom cheikh sépp mi ngi leen sant comme ni ko sëñ jëm bu waxee kon mi ngi sant ñëpp daal ci euh, cheikh si di sant itam taalibe yi nga xamante ne nag ñooy nekk di doxal liggéey bi ndax kilifa yi wax ak ak cheikh si yëpp ñoo nekk suuf di doxal liggéey bi nga xamante ne moom nga ko sant moom nga koy def loo mu ànd kook ñoom ah muy fàttali nag ne diwaanu diina ci sa kàddu lu jóge ci sa ndigal la jóge yaa ko santaane jublu woon ci itam lëkkale mboolem kër yi Cheikh Mouhamadou Moustapha yi lépp loo xamante ne moo aju ci kër gi ñu di ko toppatoo di ko saytu rawatina màggaluk mu muharam bi ñu di ko saytu di ko topp too di ko organiser di ko jéem a def ni nga xamante ne noonu la ko mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoo la ñoo la jiitoon di ko defee nga ñëw fas yéene ko feddle noonu ci loolu itam mbooleem jeexitali kër gi lépp loo xamante ne jeexitali Cheikh Moustapha ñu jëm ko saytu toppatoo ko ni gën a rafet anam nee na loolu mooy objectif yi nga xamante ne moom nga doxoon ci diwaanu Mouridina di ko soñ jamono bu ne mbooloo mi ànd ceeg moom loolu nag ngir mu doxal ko nee na mbokk taalib yi mu ko àndal ñoom la àndaloo ñu def ko ay ay commission yoo xamante ne kenn ku nekk la nga ca féetewoo yaa ngi ciy jéem a doxal na nga ko mane ngir jëmmal euh, ndigal li la ci jiitu mooy waa commission culturelle ñoom day wax dëgg yàlla ñu ngi jéem a lëkkale buntu kër yi Cheikh Mouhamadou Moustapha yi ndax bu màggal gi xëy na ñaari at yi moo jàll mu xawoon am ay tolof tolof comme ni ñu ko waxee léegi ci li fi xewoon waaye buntu kër Cheikh Moustapha yi danoon topp kër gu ne ñu dem fa waxtaan ak waa kër ga. andi waa commission culturelle bu kër ga ñu waxtaan ci doomu Cheikh Moussa wala waa kër Cheikh Moussa googu bi nu paree waa commission culturelle bi jéem na noo dugg ci yeneen këri Serigne Touba yi fenn fu nañu invité commission culturelle ba fa nekk ñu ñëw waxtaanal leen ca kilifa googa waxtaanal leen ca ay jeexital ak digganteem ak Serigne bi nee na def nañ ci lu baree bare loo xamante ne xëy na temps bi dafay xaw a xat ba dis ko war a mën a euh, waxe lépp ca loolu itam am na li ñuy wax commission sociale ñoom itam ñu ngi lu baax kenn ku ne xam ne ne suñu jub màggal gi dangeen ngeen gis mbale mu mag seet setal boo xamante ne ñu ngi koy waajale màggal gi ni ko Cheikh Mahamadou Moustapha daan defee ñu di ko ci barkeeloo di ko def at mu ne commission sociale boobu ñooy def seen i défense def seen dëbët ba ñu fas yéene ba dëkk bi setal Daaru Xudóos setal li ñu mën a setal ci dëkk bi lépp itam ak képp koo xamante ne mi ngi fi di mbokkum taalibe ñu yëg ci moom ay jafe-jafe dinañ ñëw jokkoo ci ak sëñ Ousmane ñu seet nu ñuy def ba dem ca moom jafe-jafe yooyu ñu seet lañ ca man ñu dégg ñu dugal ko ca ak leneen léegi yenn yoo xamante ne waa commission sociale ñu ngi ko doon def communication itam gis na ne jamono bu ne ñu ngi nii taxaw ànd ko xarala yu bees yi fa yéene ba li nga xamante ne mooy xew léegi lu waaye di def dana ko def ci communication def ko ci xarala yu bees yi ñoom itam ñu àndante jaayante ci ginnaaw sëñ Ousmane di jéem a doxal liggéey bi ni ñu ko war a doxalee népp neen na itam ñooñu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ak itam li nga xam ne mooy commission finance ñu wax ne liggéey bi luñ ko bëgg-bëgg a liggéey mu am ay koppar yu ndaw yoo xamante ne moo koy def waaye benn ci waxtaanee de ñu ne koppar yi jërul baril nan ko barkeeloo ci ñaar fukki ak juróom-ñett ñu ne taaliba bu ne ñu ngi jey ñaan ñaar fukki ak juróom-ñett weer wu ne wala bu fekkee at mi jaxle muy 1680 ñu def ko loo xamante ni addee ju bi ndax sëriñ bi naan lu ñu fi dajalee moom du lu ñu koy jébbal waaye lu ñuy delluwaat ci liggéey bi la kon ñu xam ne 1680 yooyu ñuy laaj mooy li doxal liggéey bi mooy li doxal màggal mooy li doxal li nga xamante commission kito ak lépp lu ñu a def kon nag ñu di ci ñaaxaat ñëpp di ci góorgóorlu bu baax a baax a baax nga xam ne loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy li koy doxal xëy na nag euh, ni nu ko bëgg a guddal bëgg koo faram-fàccee temps bi du nu ko may waaye am na ñuy ñëw suñu ginnaaw ñoo xamante ne noonu gën a am fasaatu kalam dinañ ko gën a leeral ni ñu ko bëgg a leerale ah wax itam soññee bi ndax euh, ñaari at yi jàll nga xamante ne dafa tolloo na Covid bi xawoon naa xaw a sooxeel tuuti yëf yi waaye nag yëf sëñ bi moom yëfi rek la amul ginnaaw. kon nag ci turu sëriñ Ousmane donte lot nañ ci loolu itam waaye ñu doon jéemale jottali kaddu yooyu ci turam ah di gërëm ñëpp di sant ñëpp. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar kenn ku nekk ak nuyu ak ziar mu méngoo ak wàccuwaayu bi la suñu borom jox noo ngi leen di ñaanal yéen man ne suñu borom akum njëggalam barkeb sëriñ Tuubaa suñu yéene ci yéen. bu doon jëmm ñeme nañ ko indi ci penc mi bu doon këram ñeme nañ leen koo wan xatut ñaawut te wa kafa billahi shahida sëriñ ahmadu noo ngi lay nuyu noo ngi lay ziyaare noo ngi lay ñaanal ci sun borom mi nga xamante ni dara tawul te lépp a ngi ci loxoom yàlla na nu wan kiimaanu gudd fan ci sa jëmm tam ànd akuk wér ak sa wu yaatu ba li nga naan ëmb ko ci aw yiw nga tasaare ko ci bindeef yi barkeb sëñ Tuuba noo ngi lay bége bu baax a baax noo ngi lay sagoo itam bu baax ci sa yitte sag baax sag labiir te loolu toog gi nga toog jataay bi waralu ko noonu nga mel mooy sa jikko gis nañ ña nga àndaloon di jàng alxuraan ca daaru rahman gis nañ ñi nga fi àndal diggante bi di sàkku xam-xam ba nga nekkee bitim réew it gis nañ ñi nga fa nekkaloon te ñooñ ñépp seen seede benn la benn rek ci sa mbokk suñ maam Mor moom si Mouhamad al Fadal dégg naa ko mu wax ni suñu Ahmadu nii mu mel noonu la moo sa mel naka jekk daal ba ba ñu nekk bitim réew moom rek moo fi fay bursam indi ko ñu ñu di ko togg di ko lekk ba mu jeex loola seere su rafet la loolee nag gisuñu lu ko wotti te loolu lépp dafay dëggal rek kàddu ga waajuru waxoon Cheikh Mouhamadou Moustapha daa waxoon ni du ma jur ku ñàkk jom du ma jur ku yafuus te loolu xam nañ ko ci ñi jiitu ci barab bi xam nañ ko ci itam ci sab jataay kon yéesoo ñi nga wootu ci barab bi yàlla na soo fan gudd barkeb sëriñ Tuuba da ngay sant bu baax a baax te di la bëgg di sant sëriñ Ousmane ci ànd gi ànd moom ci liggéey bii ndax cër bi ñëpp am ci noonu la am ci noonu waaye cër ba feela ko teg mënul nu ko ci lii nii def kon noo ngi koy ñaanal suñu borom yàlla guddal aw fanam te may ko wér te mottali yéeneem ndax sëñ mënu Sa dañu dafay wax ni boo taxawee ci mbooloo ni yéen ñëpp laa yemale juum nga ndax koo xamante ni yemalewul ak kenn boo ko yemalee ñëpp mu gën laa gore te gis nañ taxawaay bi mu la taxaw te du moom doo nga fi ne ci njaboot kon ni am na taxawaay yàgg bëgg na nga ñaanal ko ñaanu xaas suñ borom mottali ay mébétam moo mboolem mbokk yi nga xamante ni ñoo ànd nekk ci biir diwaan bi ñu loxo sayu dama ko tudd waaye am na bokk yu mu àndal na ci biir yàlla xam na te mooy fay su ko defee bokki talibe yi diwaan bii ñu nekk sëriñ Ahmadou bii moo ko santaan wax nañ ko ci biir liggéey suñ ko doon natt ci ay at war naa dem ci fukki at ak juróom-ñaar kon du gan ci nun mébatam tam ak yéenéem mooy foo waajur yi joxoñoon mu teg fa tànkam fas nu fa yéene yóbbu sëñ Moussa mi nga xamante ni ñun ñépp mën nu koo weesu daa waxoon ni li ma suñ borom jox mu jëm ci yéen mi ngi nii ma téye waaye duma leen ko jox mukk li fekk boolewu leen seen bopp li fekk boolewu leen seen bopp ci lu leen boole rek lay nekk loolu ñun ñëpp booy na suñuy nopp sëñ Cheikh taxawal ab diwaan ci kanamam ngir lëkkale yoon wi sëñ Moussa nekk ci njabootu sëñ Tuubaa gépp nekk ci sëñ Ahmadu taxawalaat lii jëli tur woowa barkeeloo ko ca liggéey booba ngir barkeb liggéey ba ak yéene ña ko doon samp ngir rek nu lëkkatoo doon wenn say sàppi ci gannaawam naal yi fi mag ñi bàyyi nu àggale ko nu bëgg nu xoolaat suñu bopp bu baax a baax joxuñu kenn waaye kenn ku nekk la bëgg nga xoolaat sa bopp doonu seetu ci sa bopp càmbar sa dund xool rawatina jëwriñ yi jiite mbooloo te mbooloo yépp xalaati sëñ Moussa akub akub sampam moo ko fa bàyyi waaye du luñ doon ne ci suñuy bàyyi nu xool suñu diggante ak kii fi nekkal sëñ Moussa kenn ku ne xoolal sa bopp rek natt sa diggante ak sëñ Ahmad mi ngi nii di toog nun noo ngi nii kenn ku ne nattal sa diggante ak moom ba xam bu ñëpp meloon ni yow moom li mu bëgg dana ko am wala du ko am bàyyiwuma kenn nag nun ñëpp laa wax bokk yi bàkkaar du wàlle te bàmmeel deesu ko bokk man la saalihan fa li nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum man ihtada fa innama yahtadi li yi bala nga koo xam nag danga wàcc ci biir ko si bàmmeel adduna rumbuxloo bi bari na kër kër ji bari na foo tourné gis wéttal foo tourné gis ku la ku la wax a yow waaye wéetaay nga ca kanam boo xamante ne ni mat naa bàyyi xel bu baax a baax gis nga ni ñu koy xalaate ci sunum xel di ko ni tëralee yàlla xam na ni wuute naag la am foofa moo tax mu bëgg nu góorlu bu baax a baax ci ndigal lii nga xamante ni moom la nu jox te jële woon ko ca mag ñoom bis bii ñu dàkk di ci daje du bis buñ fortaatu ñaari fon ci aw kor yi ci 1932 la suñ Moussa woow njaboot gi mbokkal sëñ Tuubaa ñépp tudd leen jumaa ji fekk booba lëggéeyu baraay bi noppi na mu ni leen naa lu suñ tuwaay wi ci laa bëgg a jublu dëgmal naa ko tuddeetuma wàññiku lu ma am danaa ko ci def lu ma waaye jox danaa la ko ci defal bis boobee lañ jëlaat di ko fàttalikoo jataay bii ñu tudd ñaar fukk ak juróom-ñett ci biir yoo xamante ni amul ci ñun ku ko mënul waaye ñu néew koy def ndax diiwaan bi bañ ko taxawalee yàgg na te bokk yi bu ñu doon tudd résultat bu diwaan bi am dana wéet lool te yàlla xañunu defunu itam ni ñu gën a ndóol ci askan wi waaye bu nu andut yëngutu bay bari waaye résultat du am faaw boole sunu bopp boole suñu doole fas ko yéene jaamoo yàlla loolu rek moo ñu ci mën a génn ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu yi ci tudd itam Sëñ Tuubaa lu jóge direct kenn du ko neer moo santaane liggéeyub jumaa ji muy jumaay Touba tubaab yi xamal ko ni ko jumaa ji moom faaw ba lañ ko tàmbali da ngaa dajale xaalis ubbi compte ñuy liggéey su jeexee ñu arrêté buñ dajalewaatee tàmbali fekk ca déwén sa maam Thierno Birahim indi fa ñaar fukki junni ak juróom-ñett sëñ Touba dénk ko soxna suñuy wax awasaar ci bëkk néegi sëñ Touba yi la bokkoon soxna awasaar yoroon na bunt am na ñu fa doon jaar sëñ bi laaj lu ko wàññi ko muy ñaar fukk ak juróom wax borom daaru ni ko. képp ku aju ci man na joxe ñaar fukk ak juróom-ñett ku ko mënut ka yor sa kilifteef na la ko joxe ne leen képp ku ko joxe mooy sa njot ci sawar sëñ maam Thierno ni ko ndax manees na koo yaatal sëñ bi ni ko ba kili koro ni ko am kon konte ñu cay bañ bokk ñooy waa Touba ndax ñoo ma dëkkal ca dëkk ba ñu ñu am ñaari xaas dëkk Touba ba pare ñu ñuy laaj fa yaar fukk ak juróom-ñett tañ man ko te lu fi waay yor lu mu tuuti tuuti da nga fi bàyyi lu ñu miraas lu mu tuuti tuuti rek nga fi bàyyi doone yi luñ luñ séddoo te loola du sens ci ñun yërmaande yooyu rek la nu sëñ bi ëmbal moo tax mu joxoñ fi mu nu joxoñ kër gi moom ànd lañ baaxoo moom la borom kër gi santaane moom mii fi nekk moom la bëgg ñi mu sëqal kër gi ñëpp it loolu lañ bëgg seytaane nag du bàyyi mukk mission bi jàll lépp lu ci man ci gàllankoor ko dana ko def ndax du retraité te am na doole te su borom seetaan na ndax téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeent jaar nañ fi ngir bëgg a jagal àdduna mu të mboolem awliyaa yeeg nujabaa yeeg saadixiin yeeg sohadaay yépp jaar nañ fi bëgg a jagal àdduna mu të te mennum iblis moom yi rek moo fi nekk di gàllankoon di gàllankoon ni mu yàqee nag doo ko xam su la yàlla defalul ndimbal amoo kilifa gu laabiir te xam te xàmmee te yéwén man nga caa bañu mucc man ngaa ne ci mbir fekk sax la nga nekk du noona ndax iblis dañu daa fekk kuy kuy nelaw fekk kuy julli mu yor wantaayam di ëpp kiy nelaw nitu yàlla gis ko ni ko yaa bari jaaxaan kii di nelaw nga di ko ëpp te amoo soxla kii julli mu ni ko noppi li may def xamoo ci dara gis nga kii kii kii di julli julli gi yàqu na bu yàgg waaye mënu koo defar xamul nu ñu defar julli gu yàqu kii di nelaw nag borom xam-xam la te bu yeewoo julli gi baax moom lay bañ mu yeewu moom lay ëpp ndax bëgg mu yàndoor foofu la saytaan di toll ak noonu dara mënuloo mosul lu dul jëfe ndigal yi suñ borom yi bàyyi tere yi te borom bi tabaraka wa taala ba mu waxee ni fa aqimu salaata wa aatu zakata wa atasimu billahi la ci teg yàlla dañu julli leen te mooy jaamu yàlla xeet yépp joxe leen asaka mooy dimbalante leen boole leen seen bopp bokk yi nañ joxante loxo nanu ànd ngir yàlla te dimbalante te xam ne yàlla noppi na loolu moo ni noppal mooy noppal suñu kilifa gii nu àndal penc mii nag bu jàpp ni kenn dana nu ko defaral kër gii di kër Cheikh Mouhamadou Moussa bu jàpp ni kenn dana nu ko defaral waaye li tax nu man ko mooy nu ànd rek te mbaar mii nu tiim firnde la ji benn àndee lan ko man waaye bi suñu borom indee la ne itam nañu wóor ni coonaay bari waaye dara du taxaw dox ak yëngutu nag bokkul nan delloo siwaat suñu xel bu baax a baax te dimbali sunu kilifa yi dimbali sunu bopp boole sunu bopp lamb ci sunu wërsëg sàmmal sëñ Moussa ndono mi yii kër gii tey bu ñu waxoon ci mbooloo mi kenn ku ci nekk li nga fi defoon demal jël ko wallaay lancim dana am ñu ñibbi ak benn loxo ñoo xam duñ yóbbu dara dara duñ ko yóbbu kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax ñëwunu fi ngir jaayante ñëwunu fi ngir wax kenn lu ko neex ñëwunu fi itam ngir wax nit lu ko naqare waaye day dëgg ñu di ko wax alxaqu min rabbikum man saa fal yumin wa man saa fal yakfur sëñ bi waxloo ma ko bokk yi waxloo ma ko waaye maa ko dund ne ci biir kër gi di ko dund di ko xam muy loo xamante ne ni jëkkut jaaduwut yaa fi gën teewut ami nawle nañu xool yeneen buntu kër yi ñu bokkal sëñ nanu dimbali sëñ bi ci liggéey bi mu liggéey nanu dimbali sëñ Ahmadu ci liggéey bi mu liggéey te nun rek noo ko mën a dimbali nun njabootam noo mën a takku nekk ci gannaawam bu ko defee lu mu seen ñeme koo waaye nii nuy doxe moom fa tabarakallah yàlla noonu suñu borom doole dimbali yàlla noonu yàlla taxaw yàlla na suñu borom dox suñu digg ak saytaane ba li sëriñ bi bëgg ci noonu nu man ko wasalaamualeykum wa rahmatullah muy góor muy jigéen nee na leen di ndokkeel ci bis bii nu jógee muy weeru koor wu sell wu tedd bii nga xam ne yàlla dogal na mu jeex bëgg démb rek nee mi ngi ñaan suñu borom lépp lu ko ci jaamu mu mm, yool bi lu bare bare bare bari sëriñ bi nee mi ngi nuyu mbooloo bi yépp di njaboot bi yépp mi ngi di nuyu nee mi ngi nuyu bokk yi fi teew yépp nee na yéen sëriñ bi nee mi ngi leen nuyu mboolem ku fi nekk di góor di jigéen sëriñ baa ngi lay nuyu di nuyu bu baax a baax nee na mi leen di xamale ñu ne yàlla dogal na bég na ci wuy si bi ngeen wuy si woote bii tey xam na ne sax xaw nañ moo gëj a def ngir li dox ci diggante bi ci ñaari at yi ñett waaye bàyyi mu leen ko yéen a nga ko téye na ngeen ko téye woon mu gën a dëgër tabarakallah nee na jotaay bi ku fi teew gis mbooloo meeg yar beeg melo yi nga xam ne liñ bëggoon te yéene ko mi ngi dox bu baax a baax te weesuwul àndandoo bi nee na melo bi yéen amee ak ñëw gi xamee nañ ci ne yéen ñëpp daje ngeen daje ngeen bokk yéene bokk pas-pas te loola mooy li nga xam ne mooy liy dëgëral kër gi te liy dëgëral kër gi. mooy dëgëral dëkk bi te mooy dëgëral lislaam nee na loolu yi ñun ñëpp am nañ ci yéene moom it mi ngi seede ne yéen a ngi ciy def seen kéemtalaay kattan ngir tabax bii gën a dëgër kon nee na ñuy ñaan suñu borom mi fi toogal seen taxawaay yi gën a dëgër nee na mi ngi ñaan suñu borom takku seytaane ba mu pexeem bañ cee tàbbi mi ngi leen di fàttali lim leen la fàttali rek te mooy li nu fi indi te bàyyi nu fi te mooy góorgóorlu ci jaamu yàlla topp ndigal yàlla yi mooy fu ay tereem te xam ne yàlla danu fee bind andi nu fi ngir nu jaamu ko nee na bu ko fàtte mukk bëccëg te di ci jëfe suñ kem te lay kàttan nee na nu gën a dëgëral gën a fonk li nu boole nag gannaaw ci biir lislaam muy yoonu murid wi muy topp ndigali sëriñ bi te mooy li lislaam digle ak li mu tere mooy njàngaleem sëñ Tuubaa rek nee na buñ ko buñ ci jaaree téye bu dëgër tab sax ci takk bañ ciy jóg sunu xel war naa allah sëriñ bi ne mi ngi leen di fàttali ndigalul xalifa bi di kilifaam muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha bi Sëriñ Tuubaa liggéey bi mu at mu jot taalibe yëpp a kër yëpp a daara yëpp am luñ cey jëf nee na waa daara yi sëñ Muudu Moustapha moom mi ko jiite tey mii la koy fàttaliwaat ngeen góorgóorlu ci def fekkoon nañ ko daan defe wala mu gën a bëstee fu jëm ci kër sëñ Tuubaa yooyu kër Cheikh Moustapha nee na képp koo xam ne am nga looy joxe na nga jox Serigne Ousmane Mbacké jëwriñam ji di doomam